dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenekaay yi doore ko les échos yéenekaay mi xëy nag dikkaat ci mission FMI ci réewum Sénégal diggante 25 avril jàpp 3 mai mu ni Diomaye ak Sonko nag ñoom daal dinañuy jël dogal ngir wéyal yenn ci poñ yoo xamante ni plan Sénégal émergent moo ko fi amaloon la ñu xam ne nag ci biir journal bii di les échos mooy am na ci mbir yoo xamante daal xaw na méngoo ak seen programme muy le projet Ousmane Sonko ci biir les échos yéenekaay ba léegi nañu nag lu jëm ci wàllum séddalem jiwu gerte bi fas yéene nañ ko jox l'armée bu Sénégal mu daal di koy saytu source a dikkaat ñaar nag ah, ci ngan gi FMI amal ci biir réewum Sénégal mu ne de ñoom ñu ngay sàkku ci ñii di suñuy kilifa ñu xoolaat mbir yu bëree bëri ci wàllum doxalin gi lu jëm ci wàllum courant bi sàkku nañu ñu yokk ko waaye nag ah, njaboot yu a ndaw yi ñu xoolal leen ñoom itamit naka la ñuy fayee xool lu méngoo ak seen doole kii di Ousmane Sonko ba muy dajal jëwri nii fële ca jam ñaaja sàkku na ci ñoom nag ñu gën a taxawaat gën a liggéeyaat daal di leen xam ne kon de moom fas yéene jël ah, dogal yu yees ñeel nag lu jëm ci wàllum séddalim jiwu gerte gi moom noonu la ko njiitu jëwri nii Ousmane Sonko xamle ci biir journal bi di source a direct news dikkaat na ci mbir moomulee mu nañu kii di Ousmane Sonko di ilimaani jëwriñu daal fa na daal defal li nga xam te moom moo di ak coppite ci lépp lu xam ti ñeel na ak doxalin gu fi amoon lu jëm ci wàllu mbéy mi gannaaw ba mu dajale jëwriñ yi foofee ci jëm ñaaje wax na lu ci jëm de lu jëm ci jiwum gerte bi ne dañu soppi bu baax a baax ni ñu ko doon doxale ndax ñii di takk der yi lañ ko fa séene jox ñu koy séddale jamono jilee diggante 2020 ak 2023 lu toll ak 310 milliards de francs CFA moom la ñu dugal ci wàllum jiwum gerte gi te lu ne am na ay njuuj njuwaaj yu ci am ba tax ni kii di Ilimani jëruñ ji di Ousmane Sonko bëgg a sokki doxalin gi OFNAC nag ñoom daal dinañ adopté la prévention avant la répression maanaam li nga xamante ni moom lañ bëgg jamono jile mooy képp koo xamante ni gis nañu la woo waxtaan ak yow déglu la waaye itam nga indi ay leeral ci mbir yooyu lee laata nag ñuy bëral seeni rapport di ci itam ñoo xamante ni dañ leen di ci topp bés bi yéene kaay nañu nag dossier lu jëm ci wàllum souveraineté alimentaire kii di Ousmane Sonko jox na xal yi nga xamante ni foofee la gouvernement boobu Sénégal war a jaar waaye moom Bouba Diagne di xam ne ci biir journal bi nag nañu lu jëm la a am loonee la ne ñu lu jëm ci wàllum dakkal waaye tamit indi réew mi jafe-jafe ci wàllu yoon Le Soleil yéen kaay na ci campagne agricole bi mu ne budget ba de jëlee nañ ko ci téeméeri milliards yóbbu ko ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ilimaani jëwriñ yi ci biir journal bi di na nag ci li la ñu fas yéene taxawale lu jëm ci wàllum seddalim jiw bi waaye Soleil yéenekaay nañu dikkaat nag ci ndaje moomee doxoon ci diggante ilimaani jëwriñ yi Ousmane Sonko ak ay jëwriñam foofee ca jëm ñaayo di conseil ministères yi ñu jagleel ko lu jëm ci wàllum nawet bi waaye itam lu jëm ci wàllum mbéy mi seddalem jiwu bi réew mi quotidien ni na ca nag daal dina cey dikkaat mu ne nag nii daal jël na dogale ngir nag fay bor bi nga xam te amal nañ ko béykat yi noonee la ko journal bii di réew mi quotidien daal di xamle antenne yéenikaay nañu waa mi FMI gannaaw bu ñu ñëwee ci réewum Sénégal jël nañ ay dogal yu yees waaye ak xelal goo xam te jagleel nañ ko réewum Sénégal ñu ne nag sunum réew daal lii di croissance économique daal ci atum 2024 dina nekk ci 7 virgule 1 pour cent la réveil yéeni kaay moom itamit daal di xëy wax nag mu ne Sonko dévoile une nouvelle stratégie pour révolutionner le secteur lu jëm ci wàllu mbéy mi kii di Ousmane Sonko génn na xaalu wees boo xamante ni fa réew mi jaarale ñu mën ci gën a gis sunu bopp waaye itam moo xool ni nga xamante ni noonee la leen di jagleel lu jëm ci wàllum jiwu waaye itam bu ñu béyee ba pare nañu koy jëndee ak bor bi nga xamante nii nguurug Sénégal amal na ko yenn ci béykat yi l'éveil quotidien nañu dey fin d'une mission du FMI à Dakar gani FMI yi ñëwoon fii ci Ndakaaru jeexal nañu niki ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñetti fan ci weeru mai lañu fi nekkoon Bassirou Diomaye Diakhar Faye opte pour la continuité am na dogal yoo xam ti jël na ko mbir yi mu fi fekkoon moom njiitu réew bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye fas yéene na ko wuyal noonee ko journal bi di l'éveil quotidien quotidien mu a a Diomaye et Sonko font allégeance au PSE devant le FMI maanaam plan Sénégal émergent moom la ñu fas yéene wuyal seen projet la nga xam ne moom la ñu naaloon ngir doxal ko dañ ko nar sànn ca mbalit ma noonee la koy journal bi di le peuple daal di xam ne Dakar Presse nañu note di FMI sur la gouvernance économique du Sénégal les bons points du gouvernement Amadou kii fi nekkoon Elimani Diawrin di Amadou Ba ñoom nag daal dinañu koy tàccoo li nga xam te noonu la doon liggéey daal waa FMI na noonu la ko journal bi di Dakar Express daal di xam ne l'info quotidien revoit à la baisse ses perspectives la nga xam ti moom moo ko indi woon ci réewum Sénégal ci wàllum koom mu na nag ko wàcce ci suuf xoolaat doxalin ga waaye itam le quotidien yéen kaay nañu poursuite du programme 2023 2026 l'état à fond avec le FMI maanaam nguurug Sénégal daal fas yéene na doxale yenn programme yi nga xam ti amoon nañ ko fii mu waroon a jàpp ci diggante atum 2023 jàpp 2026 mu ne 320 milliards de francs CFA de réserve laissés par Macky Sall yamu fa woon na nga xamante ni projet yi ci waroon doxal nguurug Sénégal Sénégal dana ko wéyal waaye itam FMI di wax rek ni nguurug Sénégal dana àgg ci croissance bu 7 virgule 1 pour cent waaye itam la muy sàkku ci sunu kilifa yi mooy ñu xoolaat njëgu courant gi ci biir réewum Sénégal lii quotidien nañu nag les semences aux cultivateurs maanaam jiw ñu doon jox béykat moo xam gerte gi la ak leneen lu ci mën a doon kii di ilimaani jorin yi Ousmane Sonko fas yéene ci indi ay yeesal la dana xoolaat séddale ga nan lay demee njëg ga caa tegu du lenn lu dul jël ji woowulee jox ko force de défense et de sécurité maanaam takk der yi ñoom la ñu kon fas yéene jox ñu koy séddalee l'observateur yéeni kaay nag nañu les noms dits de la note du FMI mu ne léeg-léeg di PSE le fond du projet maanaam li fi plan Sénégal émergent bàyyi waaye itam na li nga xam te moo nekk ci biir la ñuy woowee le projet mu ne on note une situation assez grave avec le service de la dette maanaam lu jëm ci wàllum bor bi daal ay jafe-jafe lañ ci nemmeeku ak mbir moo xamante mu jéggi dayoo la waaye itam subvention ci wàllum courant bi ñu ne nag loole bokkul ci li nga xam te moom moo di investissement bu secteur public bi Sonko le bon grain de livrer ci biir journal bi di l'observateur yéenekaay dikkaat nañu nag ci dogal yi nga xam te jël na ko ñel wàllum mbéy mi ci réewum Sénégal le républicain xëy nag waxaat ci jéey ji nga xam te am na démb fële nga xam te moom moo di Patisen mu ne kenn loru wëcca waaye nag ak daay gu mitti moo am lakk gu mittee mittee dikkaat na itam ci gan gi nga xam te njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye aman na ko démb foofee ca Daaka bu Medina Gounass la tribune yéenekaay dikkaat na nag ci lu jëm ci wàllum mbéy mi ak ndajem jëwrin yi nga xam te am na niki démb ca jëm ñaajo ci njiital ilimaani jëwrin yi Ousmane Sonko la tribune yéeni kaay mën nañu les forces de défense et de sécurité désormais impliquées ñoom la ñu fas yéene jiital nag ci programme mbéy mu yees mi lu jëm ci wàllum séddalem jiwu gi ak yu ci bëree bëri danañ ko teg ci loxo loxoy takk der yi ñu daal di koy saytu bu baax baax libération yéeni kaay mën nañu malversation présumée à l' agence nationale de l' aménagement du territoire mu ne nag ki nga xam te ni moom moo fa nekkoon agent comptable moom nag fanweeri sek ak ñett ñeel boppam jox ko boppam cour des comptes la muy sàkku jamono ji nag mooy koppar yooyu nga xamante jël na ko def ko ay chèque jox ko boppam mu remboursé waat ko noonu la ko journal bi di libération daal di xamle anaat vox populi fësal ca xëtamu njëkk premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko journal baa ko duppee Sonko décline la priorité de son gouvernement di xamle ni jamono ji nag la leen gën a ñor du lenn dudul taxaw ci jafe-jafe askan wi wàññi dundu gu cher gi subventionné a yomb ci ñoom ñu ni déet waay moom PM di Ousmane Sonko bi ba tam bokk na ci réduire ñu duppee le train de vie de l' état maanaam yu bëree yi nga xam ni état bu Sénégal yàgg na koo def ñu wàññi ko bu baax a baax jël koppar googu dugal ko ci askanu Sénégal le quotidien le quotidien fësal ca xëtamu njëkk président de la république Bassirou Diomaye Faye journal ba nga naan ñu moom Diomaye nag lu mu bañ bañ politique yi nga xam ni président Sall jot na ko def ci bopp réew bu Sénégal am na foo xam ne moom ànd na fa ak moom bu baax a baax nag dale ko ci lu ñu duppee bourse de yi nga xam ni moom lañ doon jagleel ñenn ci askan wi ñu gën a néew doole ngir ñu am luñ suturloo président Diomaye nee na da koy continuer bu baax a baax également lu ñu duppee le programme de cent mille logements du programme bu xam ne président Sall moo ko initié woon ci bopp réew bu Sénégal président Diomaye nee na daf koo fas yéene bu baax a baax les échos ma nga naan ñu boo leen bëggee dégg-dégg daal moom président de la république Bassirou Diomaye Faye jamono ji moom daanaka foo teg sa bët rek seen ko bu fa yëngal boppam ma nga fépp bàyyiwul fenn bëgg a lépp ngir lépp jaar lépp leer naññi ci dëkk bii di Sénégal waral mu doore ko ca Dakar dem dikk dib société di xamle ka ni nañ ko leerale lépp lu fa am jëm ca biir seen fay dawal ana lan ba liggéey ba nan lay doxee ñu ko saytul na mu gën a gaawee lépp lu jëm ci BRT bi nan lay doxee lan mooy modalité ya nan la liggéey bi exploitation bu di doxee gestion bi également na leen koy tëralee ak lan moo ci am amu Sénégal ndax intérêt la wala ay defeti kase la jumaa di sàkk ñu leeralal ko lépp ba mu leer naññi les réveils duppee xëttam muy njëkk tous balayé di xam xam ne ni njiitu réew bu Sénégal jëlati nay décision nag wàccee DG yu bëree bëri dale ko ci Maguette Sène Diouf Sarr ba ci Abdou Karim Sall ils sont tous été limogés indi DG yu bees tàq yoo xam ni ñu leen fas yéene remplacer ci secteur yi gën a am solo ci bopp réew bu Sénégal dale ko ci Babacar Thiam ñu tabb ko directeur général bu FONSIS Tahirou Thiam directeur général bu ARTP Ndendé Mbodj directeur général bu COUD Ngagne Demba Touré directeur général bu Société des Mines du Sénégal DG yu bees tàq yoo xam ni président Diomaye mu leen daje ci paquet jox leen ay poste ngir ñu doxal ginnaaw bu ñu ba dañu xamal ni jamono jii li ñu wax du lenn dudul waa kër Diomaye ci kaw waa kër président Sall ci suuf daanaka un mois boobaa léegi di weeru yàlla président Diomaye mi ngi wàccee nam ko mënee di yéegal nam ko mënee ay ñoñam ngir ñu doxal nag ginnaaw bu dee askanu Sénégal wóoloo deux millions ci askan voté leen tabb leen ngir bi ñu jiitee ci élection présidentielle yu 24 mars 2024 yi passé suñu làmb fësal ca mu njëkk Gaston Mbengue ginnaaw bu mu wujjee boroomam journal ba dikkaat ci jaar-jaaram ci làmb bu Sénégal taxawaay bu am solo bi nga xam ni yàgg na ko cee amal journal ba di biral di xam ne ni moom Gaston Mbengue moo révolutionné làmb fii ci Sénégal nag indi sponsor bu baax a baax ba tax na ni ki tey bu lëg-lekkee olom na ko gërëmee coy ginnaaw yàlla bu mbër taxawee di fayee ko ay millions nekk star ñu koy topp fépp ci àdduna ci topp ginnaaw yàlla moom Gaston Mbengue moo tax ginnaaw taxawaay bu am solo bi nga xam ni yàgg na koo amal ci làmb bu Sénégal révolutionné ko jox mbër ak ak yelleefam bu baax a baax ci arène bu Sénégal réew mi quotidien ma ngi ko duppee dernier chapitre d'un long voyage di xamle ni feebar bu méttee méttee ko daane loon moom Gaston Mbengue jafe-jafe yu bëree bëri mu am ko jëm ci wér-gu-yaramam ab diir boobaag léegi mu tëj ci lal hôpital jot a dem bitim réew di kaa jéem a faju wante bu yàlla bëggee na nga ko jébal boroomam ci sëgi yoof moom la doon kin de la lutte sénégalaise di Gaston mbeng ñu delloo njukkal bu baax a baax nag taxawaay bu am solo am solo bi nga xam ni jot na ko ama ci làmb bu Sénégal révolutionné ko comme ni ko waxee bu baax a baax jox mbër gëddëm jox làmb gëddëm ba tax na ni ki tey jii ñuy waxtaane làmb ci àdduna wërngël këpp ginnaaw yàlla moom Gaston mbeng moo tax boo tax na ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla boroom bi jéggale jéggal koy bàkkaaram xaare ko àjjana gën a kawe